dafa def faratay julli yi muy fukk ak ñeent nga bañ a fàtte ne li ci ëpp farata moom day dugg ca jëmmi loola sart ma nga weesu woon nag day génn ca dëgg-dëggi loola maanaam sarti julli bokkut ak faratay julli ci teqale bi farata day dugg ca saalut mbir ma maanaam bokk ca dëgg-dëggi jëmm jooja sart nag moom da cay jàpp te du dugg ca jëmmam dëgg dëgg dëgg li mu ne farata julli fukk laa ñeent moom nga ñu ne fukk laa juróom waaye moom dafa wëngaale wut su bëggoon a ànd ak kenn mu jiite la julli dañuy wax ne farata la nga yéene roy ca moom ca ba ngay tàmbali su julli nga xam ne bu kàbbaroon ba tàmbalee julli dégg nag jàkka ji jottali du man ne naa ànd ak jàkka ji rek noona nga xam ne bàyyiwut la mu kàbbaroon di wéy rek ànd ak ñoom dañuy sart naree ànd kenn ci julli mu jiite ko ca balaa kàbbar lay am yéene yi ànd kooko mu jiite ko farata boobu nag ndegam moom du saa yu ne mu am moom borom téere bi faru ko limaale li ko taxa mat nag fukk ñeent te limul boobee daa am beneen bumbu limaale boo xam ne daawoo dégg ñenn ñi di ko limaale da nga gisit mu boole taxawaayu kàbbaru armal ak taxawaayu jàng faatiha muy benn farata te dañ ko daan teqale ne taxawaayu kàbbaru armal farata boppam la taxawaayu jàng faatiha farata boppam la farata bi jëkk ci mboolem farata julli yi yéene la waroon wax waaye moom dafa jëkke kàbbaru armal bi fekk na nag yéene ji ak kàbbaru armal bi ñooy lëkkaloo ñooy ànd mu ne kon ci waxinam allahu akbar bi nga xam ne moom ngay duggee ci julli gi mooy farata bi jëkk moom nag kuy julli ku ne farata la ci yow muy ilimaan muy maamoom muy kenn kuy julli te it lay baax rek mooy nga ne allahu akbar leneen loo man di wax du baax boo ne woon fa akbarullahu mbaa nga andilu ko buru ci maanaa ni ki allahu azam wala allahu kabir loolu lépp du ko tax a doy faw rek allahu akbar moom rek kay baax nay moytu nag wax ak baar di bijji baa bi ba tey nay moytu allahu aku baru aku ya su ko wax allahu akbar lay wax koo xam ne nag mënta wax allahu akbar noonu ci arab am nañu ne ndegam xam na li muy tekki da koy wax ci langue la nga xamee ne mooy aw làngam mbaa weneen làng woo xam ne moom la man am ñu ne déedéet bu fekkee ne kay mënul allahu akbar wax ga wàcc na ko du ko roccee leneen yéene kese rek lay def ñu wàññee farata ñaareel bi mooy yéene yéene mooy toogu rek ci sa xol julli bu mën doon bu dee tisbaaroo bu dee takkusaanoo bu dee geneen boo dogal sa xol ci julli ko rek yéene nga ko yéene moom daa yomb yomb ba nga xamee ne ki ànd ak sagoom bu ñu ko ne woon boo ko def bañ ngaa def googee moo koy jafe ndax li ci yëpp doomi aadama moom bu àndee sagoom lu muy def rek dana ci ànd yéene kon yéene daa mooñu ñu di ko wax ci làmmiñ naa yéene naa julli sàngam bu dogoo ci xolam rek ci julli julli sàngam rek dal nay yéene te it yéene de day ànd ak wax ga allahu akbar jërul nag xelam di jaxi-jaxi ci liñ ko wax ne ko faaw yéene ji day lëkkaloog allahu akbar ji bu bañee jax-jaxi man rek bu waxee ci xelam ne yéene naa tisbaar daal di ne allahu akbar fi saasa mbaa bu nee ci xelam yéene naa gii gii ñu julli rek ndax gii moom wecc na jaar ca turu julli ga bu nee yéene naa gii rek daal ni allahu akbar fi saasa kon yéene jafewut lëkkale gi ak tuddi allahu akbar ba tey jafewut lu ci nekk ak yombal la na ci moytu di jax-jax yi bu yéenee jëm julli farata googee rek nag mu doy du jar muy du jar muy bàyyi xel di yéene waale li mu rakkay julli googee mel ne bu yéenee julli suba rek doy na du jar muy dawal xelam ci suba kat ñaari rakka la su yéenee julli takkusaan it doy na sëkk du jar duñu sart itam mu yéene waale ne takkusaan kat ñeent rakk laa ko yéene julli ndax moom la loolu jaru ko dafa def farata ñetteel bi muy jàng fatiha ndax moom day bëgg boole taxawaayu armal bi ak taxawaayu jàng fatiha bi ñu doon benn farata moo tax mu jiital ne jàng fatiha farata la ci ilimaan muy kay jiite ak kenn rek kuy julli waaye bu fekkee dafa am ku lay jiite nga ànd ak moom xam ne ko li ñuy wax ma moom lañ lay tudde yow jàng faatiha nekkul farata ci yow te liñ koy xàmmee mooy boo dikkoon fekk limaan mu rokkoo nga ànd ak moom jàpp ci woom ya bu dëgër rek dañuy jàpp ni bokk nga ci boobu rakka te buñ ne woon nag jàng faatiha mënta ñàkk ci ma moom day mel ne kon boobu rakk doo ca mën a bokk waaye ñëpp màcc nañ ci ne boo fekkee ba ñu jàpp ci woom yi bu dëgër rek boobu rakk bokk nga ca moo tax ñu ne kon biñ ne jàng fatiha mënta ñàkk ci julli ku jàngul fatiha amoo julli bu kooka dee ilimaan mi koy jiite mbaa kenn koy julli moo tax ñuy wax waaye bu amee ku lay jiite moom bu dee ci yoonu malik bu dee biral maanaam di wax wax ji muy yëkkati dañuy sit ngay jàng ci suuf dañoo bëgg nga ne patt rek di ko déglu loola mooy sunna bu ilimaan dee wax ca suuf nag mooy di yalu ñu sopp yow maamoom ba tey ngay jàng di wax ci suuf ndax sam xel bañ a dem ci leneen bu ñu nee nag jàng faatiha farata la kon jullit bi war naa góorgóorlu ba mën faatiha bu baax ba bu ko dee jàng bañ caa yàq bañ caa joom su fekkee nag mënul faatiha te mënusu koo jàngal itam kon ne fekk ku mokkal faatiha mu di ko jiite su fekkee nag moom mënul faatiha te it yàlla def mënu koo jàng ci genn wet te gisul ku mokkal faatiha ku ko jiite kon na julli rekk noona jàng faatiha ga wàcc na ko daañu sopp nag bu waxee allahu akbar bu bañ a jekki-jekki daal di rukkoo te ne patt ab diir mbaa su fekkee mën na benn xeetu sàbbaal mbaa dara mu def ko door a jàpp ci juróomam ndax dañuy taamu kàbbar bi ak sëgg rukkoo ga lum néew néew ñu jaarale fa dara mooy tàggale leen ñu bañ a sësaloo rëkk-rëkk nga noonu moom daa boole taxawaayu allahu akbar armal ak taxawaayu jàng faatiha daal di koy jàppe benn farata fekk na tey boo jàpp li gën a wóor mooy tàggale gi ngay wax ne allahu akbar bu jëkk bi day farata kon taxawaayam farata la jàng faatiha itam kam war muy ilimaan mbaa kenn kuy julli jàng faatiha ga day farata taxawaayu jàng faatiha ba itam nekk farata jàppa loolu moo gën a wóor ci ñu wàññee farata juróomeel bi moo di rukkoo rukkoo nag jàppal ne boo sëggee ba nga xamee ne say ténk jege na say batiwam rek jëmee ko ci boppam am na ni mu ko waxee nag dañ ko soppe noona taamoo ko noonu rek mooy nga àgg ci jàpp ci say woom bu dëgër dëgër te du ci say tànk mu taxaw bu baax a baax bañ a mel ni ku xaw a sukk su ko defee bu dee góor dañuy sopp yàng ay cëram nga xam ne ni mu jàpp ay loxoom ci ay bëti woomam ay përëgam dañuy sori ay poqtaanam bu fekkee ne kam dendal ñuy julli du ko xatal du ko teg benn jafe-jafe kon daañu taamu boo jàppee ci say bëti woom nga soreele say përëg mu sori sa poqtaan ñu taamu itam sa gannaaw nga bañ koo dóoxal bañ koo siggil bañ koo xoggil sa bopp itam noonu nga bañ koo téenal bañ koo sëgal nga xam ne gannaaw geeg bopp bi lépp day maase rek mel na mu war a mel juróom benneel farata ci ni nga ko wàññee mooy sujjóot fekk na sujjóot ak dëj rek moo doon farata waaye lim ci boole ci sujjóot ak bakkan bi moom day sunna bu dee sujjóot nag sukk ay bëti moom samp ay baaraami tànkam muy baaraami ndëgg yi rëppil ay loxoom fa tolloog noppam loolu lépp dadi lu ñu sopp muy matal rek sujjóot ba ndegam siggiyee ca rukkoo ba ak siggiyee ca sujjóot ba lu ci nekk daa doon farata mu far leen boole ñoom ñaar daal di ne farata juróom-ñaareel ak juróom-ñetteel mooy siggee ca rukkoo ba ak siggee ca sujjóot ba maanaam boo rukkoo yee da ngay siggi ba mel ni ba nga sëggagut boo sujjóotee ba tey nga siggi ba mel ni ba nga sujjóotagutoon sigg boobee farata la boo yàkkamtee ba na nga jàpp ci say woom rukkoo da ngaa jàll rek sujjóot du baax ba tey sujjóot bi boo koy def da nga yëkkatiku ba mel ni ba nga sëggagutoon waaye boo xawee siggi tuuti daal delluwaat sujjóotaat du baax te bu ñu nee siggee ca rukkoo ba ak siggee ca sujjóot ba farata la kat soo bàyyee siggi googee day aajoo nga rukkoo waat bu dee rukkoo baa sujjóotaat ba tey mel ne loo defutoon ndax nga mën a siggee ca rukkoo ba ak ca sujjóot ba ndax ndegam faaw rek nga dellu rukkoo waat bu dee rukkoo baa sujjóotaat bu dee sujjóot baa ndax nga mën a matale faratay siggee ca rukkoo ba ak siggee ci sujjóot bi boo ko deful rek doo mën a am siggi googu daa njëkk a wañi jataayu salmal bi te waxagul salmal bi maanaam diir ba ngay waxee asalaamaaleykum bi nga xam ne moom ngay noppee ci julli ga diir boobee nga toog ko farata la ba yàkkamte woon ba ba ngay wax asalaamaaleykum da ngaa jóg di dem mbaa nga tëdd nga xam ne toogoo ko bu baax farata fukkiil bi nee na mooy wax ga asalaamaaleykum bi nga xamee ne moom ngay noppee ci julli ga moom nag asalaamaaleykum ji rek mooy doy boo ne woon aleykum salaam du doy boo ne woon salaamun aleykum bañ koo taare itam du doy bu dee kenn kuy julli mbaa ilimaan bay jiite moom asalaamaaleykum ba bennoon rek la koy wax am na ñoo xam ne bu dee kennoo ak bu dee ilimaan dañuy wax asalaamaaleykum ci ndeyjoor wëlbatiku ci càmmooñ maanaam itam ñoom ñu boole ca wa rahmatullahi wa barakaatu waaye jàppal ne waaye jàppal ne ci yoonu maali daal moom bu dee kay jiite mbaa kenn rek kuy julli asalaamaaleykum ji benn lay doon mu xaw a dundal cootuk ndeyjooram te du ca boole wa rahmatullahi wa barakaatu ñoom nga boole ca wa rahmatullahi wa barakaatu benn ñu sikku mbaa mu wuuteeg la gën a yey mu ne nag soo doonee maamoom mooy am na ku lay jiite kon yow da ngay wax asalaamaaleykum bu njëkk bi nga xamee ne moom ngay noppee ci julli ga mu doon farata nga xaw a bu mooy jëm ci sa wetu ndeyjoor dañu sunnaal nag nga waxaat beneen asalaamaaleykum te wax ko ci suuf duñu ko delloo sa ilimaan bi la doon jiite su fekkee dañuy julli ci na ngeen toogee ca sàppe sa am na ku la féete ci tàmmooñ te am na julli ko lu matub rakk itam sunna la nga wëlbatiku wax ko ndànk asalaamaaleykum nga xam ne asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata moom dañoo taamu nga wax ko ci kaw biral ko waaye asalaamaaleykum bi nga xam ne moom ngay delloo sa ilimaan wala ki la féete càmmoñ dañoo taamu nga wax ko ca suuf mu ne nag dañoo waxoon ne asalaamaaleykum bi farata moom faaw nga ne asalaamaaleykum mu ne nag lañ gën a taamu mooy salmal ba ngay delloo sa ilimaan mbaa ka la féete càmmoñ itam nga waxee ko noonu ne asalaamualeykum waaye bi ngay delloo sa ilimaan mbaa ca kay tàmmooñ boo ne woon waxaleykum salaam mu baax boo ne woon sax salaamun aleykum bañ a taara baatub asalaam ne salaamun aleykum it mu daal du baax waaye nag nga wax rek asalaamaaleykum na nga waxee woon bu farata ba moom lañ gën a taamu mu ne nag booy wax asalaamaaleykum bi nga xam ne moom ngay noppee ci julli gi di sart ne faaw nga yéene ci ne maa ngi koy wax ndax noppi ci julli gi te sam xel demul ci nopp ci julli ga itam boo ko waxee rek mu doy waaye duñu sart ne faaw rek nga yéene ca mu doon lay génne ca julli ga boo ko waxee rek te fekk nga war ko wax rek nopp nga ci julli gi jooju wax ne moo gën a wóor am na wax bu ne nag faaw booy wax asalaamaaleykum da ngay bàyyi xel ne wax gi nga koy wax moo lay génne ci julli gi boo toppee jooju wax nag kon nee nañ booy wax asalaamaaleykum ba da nga ciy ànd ak yéene ju ràññiku boo doonee ilimaan da nga ciy yéene nopp ci sa julli ak nuyuwaale malaaka yeeg ñi nga xam ne ñoom nga doon jiite ñu roy ci yow boo doonee kenn rek kuy julli kon nga yéene ca nu malaaka yi nga xam ne ñoo ànd ak yow ndax loo doon doon kenn am na malaaka yu la yàlla booleel maa moom nag kon moom bu dee wax asalaamaaleykum bu ci yéenee noppee ci julli ga da cee boole yéene waale nu ilimaan ji koy jiite ak malaaka ya fa teew farata bi mu def fukk ak benneel mooy li ñuy wax al i'tidaalu yamoo yamoo bokkut ak dal yamoo mooy boo siggee ci rukoo ci misaal ak boo siggee ci sujjóot bu dee siggi ba nga dellu ba mel na nga meloon ba nga rukoowut ak ba nga sujjóotut kooku nag farata la doon naa ko wax léegi maanaam boo jàppee ci say wóom da nga siggi ba taxaw jonn mel ne bëgg a sëggagutoon bu taxawee ba jub xocc mel ne ba nga sëggagutoon rukkoo loolu mooy al i'tidaal boo nee tekk nag ba cëri dal te bañ a gaawantu loolu bu mu ëpp loolu mooy tudd attuma nii na ak dal ngeen bëgg a wax ba tey bul fàtte kon boo sujootee itam nga siggee ci sujoot ba delluwaat ba mel na nga meloon jub xocc door a delluwaat sujoot sujootu ñaareel delluwaat ba cëri jub xocc mel nañ meloon farata la farata bi nekk fukkeel ak ñaareel mooy ponk bu mën toll ci julli gi nga ne tekk ba cëri ya dal boo taxawee boo rukkooyee boo sujootee boo siggee ci rukkoo boo siggee ci sujoot boo toogee diggante ñaar sujoot ñi foo toll rek ne tekk ba cëri dal waaye soo yàkkamte yàkkamte lool ba nga xam ne tekk jooju amut cër yi dalul sax kon bàyyi nga farata te wax ji gën a wóor mooy julli ga du baax mu ne la li wax al i'tidaal yemoo ak ak tuma ninatu dal yow mën nañoo tàqale ndax i'tidaal mooy jubuk cër ya tuma nina mooy daluk cër ya te ku ci nekk mën naa am te moroom ma du am ndax cër yi mën nañoo jub mel nañ meloon waaye dal amut dal ba tey mën naa am te cër ya jubut kon nga boole yaar yëpp nag sàmmantal ñoom xamal ne ku ci nekk farata la fukka ñetteel ci farata yi mooy nga toftale rakka bu ne na mu tegaloo ba àgg ci asalaamualeykum mujj nga mujje ko maanaam boo kàbbaree ànd ak yéene loolu moo jiitu nga teg ca jàng fatiha ak taxawaayam teg ca rukkoo ak siggi teg ca sujjoot ak siggi nga tegalee ràkk bi noonu jàll ba asalaamaaleykum mujj ci farata la soo ko tegalee woon noonu rek julli gi du baax mel ni boo doon julli jàng fatiha te waxoo allahu akbar du baax boo doon julli sujjoot te rukkoo du baax kon nga tegalee ràkk bi gannaaw yéene ji kabar bi lépp tegaloo na mu war a tegaloo ba asalaamaaleykum mujj ca farata la farata bii nag dawoo ko dégg ci téere yu sëriñ bi ak téere yu bare bari mooy sësale lu mu def teg ca la ca topp te bañ fa jaarale diir bu yàgg yàgg mel ne bu waxee allahu akbar muy armal na ci sësale jàng faatiha bu faatiha ji jeexee ak bu dee ànd ak saar saar wa jeex na ci sësale rukkoo daal jàll sësale ci sujjóot waaye bu defoon lee bàyyi diir bu yàgg yàgg door def la ca des rek ci liggéey du baax mel ne bu ne allahu akbar amal teg ca lu yàgg yàgg te jàngul faatiha du baax bu jàngee faatiha ba mu jeex waaw bu dee ànd ak saar wa bañ jeex mu teg ca lu yàgg yàgg door rukkoo itam du baax day aajowoo kon bu noppee ci lee teg ci lee ñu sësaloo te bañ a tàggale diggante ponk yi tàggale bu yàgg yàgg kon almuwalaatu moom mi taalif moo ko wàññiwaale waaye néewaar nga gis keneen kuy wàññi faratay julli mu di ko wàññiwaale xëy na ñenn ñi wàññiwaale ko ci la yàq julli ci ñàkk sàmmoonteeg moom xam ne kon bul fàtte sàmmoonteeg loolu jàppal ne ñàkk ko def day bokk ci yiy yàq julli ga waaye nag ngir sam xel bañ a jaxasoo daal man ngaa wàññi faratay julli fukk ak juróom rek ni nga ko miine gis ci téere yi sëriñ bi ak yeneen téere yu bare bari moo la gën a noppal kon ci gàttal moom nee na rek faratay julli fukk laa ñeent am na benn farata bu wàññiwaale boo xam ne ñu bari bu ñu ko wàññiwaale muy almuwaalaatu ba noppi tam moom dafa boole taxawaayu armal ak taxawaayu jàngu faatiha def ko benn farata te dañ ko daan tàqale nga seet